ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala ñun jullit yëpp di julli ci sama mbindéef bi alayhi wa salaam di ko ñaanal jàmm ju sax dàkk moom ak njabootam bu sell gi ak saabaam yu baax yi ak góor yàlla yëpp di mësul gi seytaane mu xëjamal suñu diine wala mu jax-jaxal suñu dund jàmm ju mat sëkk mu ngi jógee ci yàlla mi nga xam ne mooy ko bari yërmande bi moo tax ci weeru koor guddi gu mag boobu ñuy wax laylatul xadar mooy guddi la boo xam ne guddi jàmm la ba keroog di set dina tam jàmm yàlla bu sax moom war na ci bépp yonent waaye jàmm ak yàlla bu sax war na ci jàmm yàlla tànn nga xam ne ñoo remplacé nañ fi ba tax na doomu aadama bu mën a doon danga war di dox ci jàmm di ci wax waaye bu la nit réeree woon sax wala mu bëgg la provoqué ci fitna yow bokkal rek ñuy wax jàmm yàlla nag njub moo ko yore dañ koy xëcc rek dañuy xëcc jëm ci moom dañ ko sàkk yàlla nag ñëpp la soxla ñu jub ñëpp la soxla ñu koy jàmm waaye soxla na ndaw lool ndax ndaw dafa nekk yàlla ndaw yàlla da ko soxla ngir dooleel jum ko soxla ci ngir jihaad yeeg ci diggante waaye seytaane da ko soxla pour bu ko utiliser pour def loo ko gën bëgg a def moom ndaw nag ah, mu xam ne rek gën ci yàlla mooy di ëpp solo ci moom ndax kat loo gën a màggatee man mm, man day wàññeeku waaye su boobaa li nga defoon ci lu baax ci ndaw day gën a dolleeku nañ xam ne tamit koo xam ne jébbal nga yàlla sa bopp soobu nga ci géeju njub ji te ñëpp ci war a jébbal ki gën a baax daal mooy koo xam ne lu baax rek lay def waaye jébbalu na mooy seet na ci góor yàlla yi kenn mu dénk ko boppam mu koy ombat demee ko ci yàlla koo koy loo ko ne moom moomul àjjana waaye daf koy wan ni ñu koy gisee rek lu mel ne rek nga ànd ak nit géej di mën ngeen sànni mbaal waaye moo lay gën a yàgg mbaal moom mun na xam fi jën yi nekk ngeen dem fa waaye mënul laa garantie di nga am jën jën moom yàlla rek koy may mhm. yow mi yàlla yónni nag xamal ne ñu ngi teg ci sa kaw wax ju diis waaye li ëpp ci nit ñi dañoo bëgg àddina fàtte ne bés dina jot boo xam ne bés bu tiitalu la bés bu diis la diisaayu bés bu weesuwul gone yu ndaw yi keroog dañuy béjaaw waaye ku nekk ci nga doon nàmpal di ko sànni ndax da fàtte sa bopp ñëpp dañu xam ne loolu am la ñoom dañu xam ne loolu am la nit nag dafa foog ne yàlla da ko cëppeel nii rek yàlla dafa am ci moom soxla soxla si mooy dafa bind pour mu jaamu ko kon nit bu mu fàtte loolu nekk rek lañ ko fi cëppeel ay soxlaam waaye dañ ko fee cëppeel pour soxlaay boromam nit tamit dafa foog ne bu xasee jébbalu nekk jullit rek dara du ko dalati waratul ñàkk waratul feebar waratul jaaxle waratul am naqar demeewul noonu mooy ci jébbalu sax la yomb a teg ay nattu ndax ci biir natt yooyu muñ gi mu koy muñ ak góorgóorlu gi ci góorgóorlu ci la ay tiyaaboo bi dollee ko xam nga ne fajar mu sedd nga sànni sa mbaaj jàpp ndox mu sedd dox dem ca jàkka ja xam nga ne nga xiif de sa frigidaire lépp nga fa nga tëj ko indoo xiif xam nga ne nga am alal doonte bëriwul nga dajale ko passé ko dem màgg ñëw ak yu mel ak yu mel muñ yooyu ngay def te yàlla tax yàlla nee na mooy tax nga yegg sa ci man yéen doomu aadama yi ñun doomu dañoo ñàkk amul kenn koo xam ne bi ngay juddu buum sax nekkoon na ci sa ndigg wala indaale woon nga fi benn benn yére te nit war na bàyyi xel koo xam ne bi nga juddoo ci deret nga tëdd te soo jooyul sax ñu tàpp la pour nga jooy maanaam boo jooyul sax ñu am ci yow yaakaar il faut ñu tàpp la nga jooy ñu door a am yaakaar ne nit la kooku xam nga ne fi nga jëm neexul waaye xam nga ne fi nga jëm fi nga nekk boobu doo ko am dara hmm. doomu aadama yi suñu borom nee na dund gi moom du luy mën a neex àddina itam du mës a neex dafa mel ni rek àddina cere la xam ngeen ne cere moom lii tax ñu mën koo wan rek mooy laalo àddina nag cere la laalo bi ñu koy wannee mooy muñ rek ku ci muñul tamit àddina fas na naqari te du neex yonent bi alayhi salaam wax na ci xadisam yi ne lii xadis la xadis mooy loo xam ne dafay gën a yombal suñu dégg-dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na juróom benn mbir a ngi nii mbir yi nañ ko bàyyi xel ngeen moytu ko ndax dafay yàq jaamu yàlla bu nit jaamu woon ba pare li ci dëkk li ci jiitu mooy jurit boo xam ne dafa yittewoo ayi bu mbokkam yi maanaam nit ku ne da nga jàpp ne doo matuwaay nga a seet lu la matloo waaye bul lu jël ci ayi nit ñi loolu jurit warul di def li ci topp mooy jurit warul soxor soxor ci jëmm di tortiire nit ñi ci xale yeeg mag yi wala boog soxor ci sa alal wala ci sa xam-xam maanaam daal soxor soxor moom bu ñu ko waxee rek wax du leer la. Hmm. jullit warul soxor jullit warul bëgg àddina mooy koo xam ne daal moom diine waaye àddina loo ko ci waa si jullit warul mel noonu jullit warul ñàkk kersa koo xam ne daal moom ñëpp bàkkee nañ ko ne amul kersa jullit warul mel noonu jullit warul fàtte dee toog rek jàpp ne yow téeméeri at ngay am te dara warul la ci jàppal na heure bu ne mën nga dee jullit warul nekk koo xam ne ñëpp la tooñ ba ñëpp nangu ne moom tooñkat la loolu da nga war ko def suñu yonente alayhi salaam nee àddina léeg-léeg mu yëngu léeg-léeg mu jaxasoo waaye bu àddina yëngoo wala mu jaxasoo la tey mu dal nit mooy yem sa kër maanaam ku dëkk ci dëkk wala ci réew moo xam ne réew mi dafa yëngatu lan lay mu daal mooy bés boobu soo mënee bul génn sa kër rek nga xam ngeen ne képp ku yóbbu ci mbedd ci réeroon tëdd moo lay walu si képp ku yóbbu ci mbedd rek wala ci àll ci réeroon tëdd mooy jóg wër si la kon léegi-léegi toog dal benn place mooy mooy gën mooy indi jàmm suñu yonente alayhi salaam nee na dinañ dem jamono koo xam ne ku ci nekk di diine ju wér di nga mel ni ku téye xal xam nga ne ku téye xal di nga wañaaru waaye di def melokaan yu wane ne yaa ngi ci jafe-jafe yonent nee na alayhi salaam yomal daal du ma ko du ma ko xoolee gis naa ne PCK yi ñuy PC jëf ya gisuma ci lu gën a diis jikko ju rafet maanaam tey julli buñ ko pété pété or ñu pété azaka ñu pété leneen ak leneen bu ci nekk diis na waye nak tiyaaba bu diisee ni mëna a muñ muñ moom wala ko ju rafet la muy toll ci diisaay benen jëf na naru ci yonente ta ali nee neena ku or ñetti fan ci wër wu ne mel na ni da nga wor sa àddina yëpp ñetti fan ci wër wu ne nak moy ñetti fan yu nekk nga wor sa fan tàmm nañ ci nag guddi yu weex yi guddi yu weex yi mooy su weer wi amee juróom-ñaari fan nga woor su amee fukki fan ak ñett nga woor su amee fukki fan ak juróom-ñett nga woor maanaam weer bu nekk nga woor benn fukki fan yi nga woor benn fan loolu nag du sunna mu akkada maanaam nekkul sunna boo xam ne forcé la ku ko mën nga def ku ko mënul nga bàyyi parce que lépp lu dul farata rek yonent bi moo wax na ci leer ku mën nga def ku mën nga bàyyi waaye daal nee na ku mën di woor ñetti fan ci weer wu ne mel nga ni ko woor te at léegi yal na yàlla def ci ñun dégg yàlla na lislaam ci ñun tiitaroo yàlla na ñuy tiitaroo lislaam dëkk bi yàlla def ci jàmm xéewal dem ci ndam آمين آمين آمين آمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وسلم قوموا إلى الصلاة يا حبيب الله